so ko weddi lii demal lagati saa di mbar ma dugal maa ngi leen di xawal ni gone yi liggéey bi ñu yëgee jëmale ko ci mbirum sëñ Isaa Euh, def nañ ko sama ndigal tàgg nañ ma ko itam ba ma digal leen ko fépp fu ngeen rek mbokk jullit yi mbokku talibé yi si ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Abdou Latif Diène xalifa Ndiène sëriñ Mourtala Dieng xalifa sëriñ Balla Fally Dieng sëriñ Souhaïbou Diène xalifa sëriñ Bara Diène soxna May Diène bint maam Cheikh Issa Diène sëriñ Cheikh Diène coordonnateur journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène ak mboolem jamiyatu tawdihi wa nasri li injasati Mame Cheikh Issa Diène ñoo am fàttali yëgle ak di woote journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène bi ñuy amal dimanche fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2023 te 6 salle unité africaine muy cinquième édition bi parrain bi Serigne Balla Fally Dieng marraine bi Soxna Mimi Touré thème bi Mame Cheikh Issa Diène ak tarbiya ñu di ko yëgal njabootu Sëñ Touba gépp mboolem Cheikh yoonu murit bokk taalibe yi ci biir réew ak bitim réew mboolem jullit yi këru diine yi soppe yi xarit yi ak wëllëre yi di njabootu Mame Cheikh Issa Diène ko yëgal njiitu réew mi son excellence Macky Sall premier bi Mohamed Boun Abdallah Dionne Adama Diallo directeur général Petrosen Déthié Fall homme politique di ci woo Serigne Makhtar Diène social Serigne Dame Koumba Diène Serigne Sidi Nar Diène Serigne Saliou Dieng Serigne Cheikh Mbacké Abdoulahad Serigne Gaynde Fatma di ci woo ci las maire bu Ndiéné Lagane Soxna Ndeye Sophie Camara adjointe maire Parcelles Assainies Papa Modou Fall directeur de l'emploi Damba port autonome bu Dakar Mbaye Touré commerçant Alasek commerçant Baye Gueye EMG Travel Service bés bangoog cinquième édition journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène dimanche fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2023 ci 6 ñuy ñaan ci yàlla ci barke Mame Cheikh Issa Diène borom jenne ak li gën képp ku fa teew daje ak li gën asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu